jël ndogal yi mat sëkk amul waaj yi sama mbokk la amul waaj yi sama waay la waaye amul waaj yi la xamante ne nii dañuy war mën a dem ba Kabrousse dem ba Bokot dem ba Jembere sensibiliser suñu mbokk yi ñi nga xamante ne ñoo nekk si dëkk bi ndaxte boo xoolee tamit ah ñooñu am nañ ci ay part de responsabilité bi ci gën a bëree côté bële la amee kon nag ngi ñaan ñi nga xamante dëkk bi politicien bu fi taxaw di laaj ay kayit gars yi dañ la koy jox si gaaw gaaw dañ la koy jox si anam bi